abonné leen ci compte bi abonné leen ci compte bi dugg leen entre entre entre entre entre sakati alim le rouge naar yaa ngay demandé du ma ci jëlati kenn damay bàyyi ba sama xel mi dal ndax man damay ragal yéen rek ma signalé kii naan ma dinaa pas le droit damay ragal gel boobu signalé ma sax nag waaye man sénégalais yi bëgg nañ ma fu ma ne ñu fekk ma fa wooy way abonné leen ci compte bi abonné leen ci compte bi dugg leen entre entre entre ya. Halo ya, allo yaay Wa, wa ya loolu ya yooyu yëpp naa ko def de amul yaay waa gis na ni ma terale yaay waaw naa def loolu damay bàyyi ba damaa bëggoon bàyyi ba nag ba ba ba sama oto pare am naa oto bi pare allo sama papa da nee dina ma yónnee ma ànd ak kële waaw avant màggal avant màggal la wax <laughs> dama laa bëgg sama xol bi dama laa bëgg yaay sama xol bi incha allah yàlla baax na yaa baax gis nga sama yaay li mu la vidéo woon gis nga vidéo bi sama yaay vidéo woon na la ba dugal ko TikTok tàppee TikTok bu Aby Ndour dootoo ko defati boo tàppee TikTok bu Aby Ndour dugal na la fa sa produit demal xool ba bare geureum la waxal lu reuy demal xol sama yaay jooju dafa risque duura mer ga dem 300000 la ma fi may ma bare ñoo sedd la sama waaj duma lek dara bala yaay si kanam naa wa de dégg nga yaay wa waaw sama sulib la ko dugal wa wa sa ko dugal ëpp na ko ëpp na ñaaram waaw waaw man gisoo li lembal ka taasu yëpp sama poset maa ngi sama poxata poset bi dama ko teg ëpp na ko di dem ñaar ñaar ba ñett waa ça va mooy nelaw rek dugal ko Allah da si ay wala dara net la di yuki meti yuki ta si da meti wa ni la da kon ser bu meti di muy tet ma yew muy yew la illa illallah na karo wala non lay def ñaari ba ah wow ni non lay nek abari أسمى سليب بسخة كوكب لا إلقاء إلا الله ورو ورو أرد ما فخفف في مالي أمن سكروت سكروت كتتعب أو يا خا <laughs> سام بين غير يا ديم ما كي ما يدعي تسي لا لا ما ما اللي ما نيجي تتع سيك فت مية بس بس بانك سب نبوك بوك بده يا بوك سينما بوك خمسة نو ما بقى على النجاي kinan naan mami jàllo mi ta ka ko yëpp sa banque pokata mi yaay dama ko bok mel ku ku yow ndombam sàcc da ngay tëj rek dina ko ron daw ngay wër na xale yi nga nekkal doom mi nag ndax dañ ni ruus ay wejjeeku samay dund ko ñoma jox la jund na lam dem ci wam yaa ngi mel ni kuy nee dafa neex dafa neex de foire Dakar yi dafa neex foire Thiès yi neexul foire Thiès yi daa ay foire Dakar quatre cent pour cent la foire Thiès moom mën naa neex cent pour cent waaye fii quatre cent pour cent quatre cent ba nit ñi dañoo baax yaay nit ñee baax am da gis koo moo ma naan ay duma fi ne di histoire ak kenn wala doomu kenn li ñu baax nga gis koo xam day jël yére boo xam ne jot na jot maamam ak tàntam mu nee bu demee da koy may neen na rek ni la koy defal waaw yaay yaay man dama live rek mu ruus ma damay ragal naar yi rek mën nañ maa signaler ndax dañ may woo du ma leen ma leen faale tappata leen ngeen yéeg ngeen abonné ci compte bi nañ xam ne borom kànja am na maafe te ñun ay sénégalais lañ naar a gën a doomaraame fii waaye lii dootuma dalati kenn du fi yéegati baa ku fi yéegati di nga set ñoo xaje billaay maa leen rawoon maa leen rawoon ñëw naa tappate leen malen rawon maki salmi ye nom yee nam nga sal Amara Faye Sall ñu wax ak yow nga ah li gën nak naka li gën nag ñaw jël nañ aja abonné ah, len ci bi abonné len ci bi monsieur faux compte la non non du faux compte sama compte la man dama bari compte tiktok sama téléphone yi bu ne tiktok mais mau koy di utiliser parce que bii nii sama beneen salon biar orang complexe Benar beneen compte malah nu ma kayak anak, débloqué nag te beneen compte live dégg man musique musique mën na ma rey waneen pare fii am am tey lépp ngeen di seetaan incha allah damay teg live Sorry, ngeen di seetaan di woote jàmm rek ngay am ndeysaan da ngeen maa bëgg bi laay dëgg la da ngeen maa bëgg toppate leen rek toppate leen live yi yëgal kër yi ngeen abonné abonné leen rek ngeen toppate live Ma ngi ni Fatou Cissesse ñëw leen amna naa yu rafet am yu rafet yu nice yu jekk ndeysaan naar yi seen àq rek ma dal ma jàpp leen rek di leen coot xam naa bi ma tu n'as pas le droit na ko ko ko signaler ndax day gis xalé di ko indiwante wat mu yaakaar nañ ko wàññi na ñoo ñi signaler rek mais yalla baax na xëy na def ci saafara jëlal googu tëgën ñu wi fi di nga nam nit ñi torop daf gane mobile ne fi gën laa gaaw mo nit ñi sonnon nañ stress oh mala gëna bëgg nee ma li ma la bëgg ëpp na mala gëna bëgg kenn mësta gis nana ko dindi ah doy na waar dañ ko dindi waaye xale ma defal ko nit danga maa bëgg waaye da nga di sama nit danga maa bëgg dëkkandooy dëkkandooy oh kii daa jóge ba Thiès waaw ñëw Ndakaaru Njaay dëbb foire bi waaw waaye ni nga ma naroon a def bu bëgg a ndékki ma ne ko déedéet doo ndékki ah. Dakar ñoo nga ndékki ba suur ah waaye nag démb xam lu mu <laughs> daa taxoo client ma ñëw bëgg a nangu client bi jaay ko ay fleur mu ne ma engagé <laughs> su ma pesee sa maam say fleur nga mel ni almeeru Saint Lazare mère bi naan ma waa yow gën a kii mun de <laughs> kenn mës ta gis lii yàlla na sa jàmm yàgg de mukk lii la lii la sa maam naan jënd ci ndox rek ndax fii moom dara jaru fi deux cent di si sa Ndakaaru eh, abonné leen ci compte bi gaaw mais xam nga kii kii dafa muus moo tax maire bi jël ko fay ko million yu bari ay million lañ ko fay nii de man daal ma taxaw di wax rek xale bi ñëw foqat ñi man ko damay dëgg eh rek mu xalangu dara eh kii dem dem laa ko rey xam nga dañ maa gis yaakaar damaa noppi yaru fekk dama vulgaire waaye dama ko wane ci kaw mami Cobra démb dama maa toog histoire kii dama ko tëggal kii démb ba pare yor ay fleur gàddu kii déggiseegul kii bu déggisee ñëppay raam ba pare daw di dugg ci biir nit ñi ko loqati noonu kii di loqati client jàmbur yi man na ko man moom damay xoola damay ray. non kenn mës sa gis. dina woowee Ahmed Seck ko ko loo ko a na Ahmed Seck tout de ma place. à ma place. ci compte bi ndax sama compte bi daa rouge sama supporter rek sama fan si abonné leen fii barke Serigne Bamba Mbacke compte bi daa rouge daa ah, am problème xaw ma luy problème leen ma kër yi joojo sa sa sa baa ngi fi sama waaji nga baax bëgg ma dee ma jënd man ma ci sànni joojo sama waaji joojo fashion joojo nga ne yaa bëgg ma mi Cobra borom Dubaay bëgg nga ku réew baax na bëgg nga ku riis engagé xale yow lañ bëgg na dootoo ko réccu si àddina engagé xale yaa ngi dee engagé xale yaa ngi dee jëlal li dëkkandoo yi dëkkandoo yi waxon na len mami Cobra amat ya nga gënantee ca law bay waaye yàllaay maa law dëgg la garab gu war a doon pencum law bay du ko gis ndax goré su ko la mami ba jéggi liggéey say xéel du oyo ooyo kapalaaniin ooyo yaa ye apararam pam pam dawala nako de maa nga sa daañu sama place poset bi kay mum jaay kan ah yow nee nga xamoo leen fa da ngeen doon dof dof waaw ki wax na waaw jox ko nga dem jënd nga dem laaj engagé fu ko jëndee jox ko dégg ma li nga wax huit cent la ko jëndee dama laaj ko fu ko jëndee joxal kii mu nekk te kanam ko gàtt gi mel ne bàmmeelu laaw ba bébé ak yow tamit ah am jël na jël dix mille mu jëndaale poisson ndax xam naa ne ñee ñëwoo ko nii nee na nga lan ko mais boo demee fekk mu jeex na ngay gedd sa kanam ko xat ji di benn lu may bañ a tudd doo bii boo demee fekk mu jeex looy wax nga nga fan ne ah man ni ma bañee xala boo reew man ah man daal dinaa leen ma lu ma naan rek waaw xoolal sama compte bi damay ragal ne naar yi dañ koo ba dañ koo bannir jënd ngeen kaay leen ma sirabal leen waxal leen lu baax les amis les amis vous êtes belle vous êtes jongoma ah. Moustapha ana mam jay mam jay dina ñew dina ñew ci kanam dëbb faar ba mu xurum wax wa do wax dara ye xala yaagi non noonu man yéen rek laay topp bëgg mënu dobra ba no noo jongo maa ba ba wul doon allo allo allo allo entrez entrez excellent gaaw yow yaa ngi tuur nii entre entre yegg leen waaye yegg leen maam Ndiaye dina ñëw waaye yow ki yow lii bëri nañ ay affaire ay tamaate farce tamaate ñamb di man du ma lekk crédité yàpp lu ci ne yow ah yow farax moom defu ko moom farax moom defu dina moom boisson boo jën baax na waaye boo defaree ñëw laaj kay nak man moom dama laa nopp maa la gënoon nopp waaye abonné leen ci compte bi gaaw samay jaaro merci beaucoup ko ngeen mës gis lii abonné leen ci compte bi sama compte bi daa am problème boo taalee day ruus xam luy problème bi tey ngaa lekk bi antaan naa ma laay daggal ci kanam ndax doo ma ni sax nañ ko desal dina des daggal foofu ci kanam nga lekk kenn mës a gis lii xam saa de gisuma ko. apa Jepang tuh wah wati eh, yang jam di live tatama tatama na fesal mo ko tatama kesal ñoy fi ba 22 heures kaskeur yi jooju ñëw na ña nga ne jooju boo gisee kaskeur yi yuk sama wajib ma defee non non lan yow dañ puusoon sa bopp moo tax mu ànd fan sa bopp nii la def non non nii la mel wala yow seen bi moo nekk loolu mais garab yaa ko tey la jeex déedéet déedéet déedéet bonjour ma yaa ngi doxal kenn da koo laa pee rek jooja ñu ngi nii waa baax na jàll na yii kay daa ragal tilimal ko ndax nit ñi bu ñuy ma jox la benn d' accord xaar ne am ku ma àll ring light léegi ma teg ring light bi xaar ci bi di jaay réew mi yëngu ma ñëw rocc bis bi dugal ko ci téléphone simple sono may bis bi sama bis bi dama koy dugal foofu noonu yaa ngi dégg bis bi dama koy dugal foofu ndax nee naa nit ñu abonné ci compte bi bu ko defee may laay fee bi ba keroog bee di baax mënuma ñàkk toog bañ a laaj léegi bu ma demee Thiès benn jox ma téléphone am compte am donc compte bobu amone presque 600 et quelques abonnés ay 6000 et quelques ay abonnés léegi bu ci gëna mettre ma rooti plus bi def ko foofu noonu su may jaay Adi aji ak Sam content na way merci beaucoup pour les félicitations bobu dina amna 719 na alors cent dix neuf cas loolu la am commencé live benen compte bi da am problème xola même bu may sétane live am ñew na xaar ma taan live ba xam day ru day kala rek day kala rek man xawma li lan la ñew bi pen tax dara sar sa ma banir ay way buñ ma banir way lolé waay ñak jot rek xey rek ne ci njaay mi ngay direct ni waaw sama benen compte bi sama direct ya. tay bi bi nangul wala suma defé ni lay def gis nga ni lay def ni gis ngeen xam lu tax lolu yow yaa ne fee nga waxoon sax Ano lalu nabagawa pala. Puro lalu binata? Ito na binaysa eh. Ano fan bigay ako manason ko mo. Dan mga paniro, ano tayo may paniro, tayo may def lolo? Banir lalu Ano yung man? lalu ah, lang waaw lan moo doon laa leen de ban may def loolu noonu question la loolu mais sama compte bi am doole bi man mooma moo gën a moom laa gën a mën a laay fee nu ñu jëf seetaan na ñu dañ lay bëgg ndeysaan wallaay sa coono la waaye nit ñi lay bëgg maa du kono yaa ngi ree ba dee yàlla dara maa dem subhanallah li metti na ma dara neex jëkkër ak jabar rek nekk xarit dafa neex de ñii dafa neex xanaa amoo jigéen noonu la ñu def góor bu la noppee daal sa temps mais ñoom dañuy jaawale jëkkër ju am xaalis bu stable jëkkër bu loolu de jëkkër noonu la ñu def. yaa nag sama dëkk kontaan naa de. waaw. gon ba pare gon ñee garaaw ma xam ci ñoom daa bari yow man dama mat man su ma gisul ma xam damay tàllal ba caaka njaay ah, man waaye bu xool ko am xam nga loolu laa nee naa gis nga yéen ngeen di xool am xaalis ah, ak am barke ak borom tur moom xolam mécanicien sax moo ko gisoon mu nopp ma man loolu seytaane ma xam ne ci seytaane damay sëy ni di la la fi man goro ko nangu gori complexe yi mëna dund ayu ma ngay live way lu baax gor ñi bal len dan may tan may xass jojo joxal ma cak sama yi ak kaskeur bi ma jox ko wala ma yonne bul jox ben cak cak alal yonne ko direct jo jo kan, toogul jox benn ay waay nee ma jàmbaar nga am kontaan naa waaye ndeysaan soxna gi sama ba kontaan naa ana maam Ndiaye maam Ndiaye dina ñëw sama beneen compte bi daa mel dañ ko bannir nee nañ yàlla baax ma nañ leen ko nañ leen ko làq fii rek incha allah di ambiance fii joojo naa jox ceg-ceg bi yére yi muy man wéef ma man wéef ma man ci sama numéro personnel bi jox naa la ko dégg ma yaa fi daa ko waaye deux fois la ngi nii <laughs> Diop abonné sama compte bi xaaral ma abonné ci yow ngi toj réew mi de oh mënaguma abonné nii Diop sama waaju kontaan naa yee sama jëkkër ji mësta am numéro personnel la léegi. personnel ma whatsapp ma am sa numéro. waa Diop Fall Diop Fall sama beneen compte ba de xam naa naar ya may waxal kenaan man dinaa baal a droit dama ragal man kooku ma signalé ndax woo na ma téléphone appel normal ne ma. toi t'as ma fait c'est pas le xaw ma lan nee na neexuma ak yooyu daal ma ne ko excuse mu ne ma toi la pas le droit tous les sénégalais ma la ma tiktok ma tiktok man naa amul ma def ma dugg ci ci compte bi ma xool live mu rouge ma ne leer na ma ne ñoo ma signalé ñoo ma signalé kenn mësut a gis lii waa Diop chéri message ma dégg def naa VPN def naa lu ne dañ maa dañ maa signalé dafa rouge dafa rouge de kenn mësut a gis suñu connexion bi soxna mi ngi dox normal nice very good tata Marème faisal mo moo ko tontu kristal Sall man tata Marème faisal rek lay top moom kristal la tata Marème faisal rek lay top d'accord job Diop ma mais job fal da bax Fallu Mbàkke liñ ma lay lacc ci nit man maanaam Diop Fall ñu ma numéro te ni ma gisee ni ciak bu 6 la dama 6 buguma kenn fokkar ni la dégg nga ma xamé ni dal ndanan la dal mom mu leer man ki kii la ko tax a jóg ko jox sa mais boo ne ma Van Siré dama naan maa leen gën a bëgg naar yi la naar yi la lay naar yi la léegi mami toppoon abi ndur wala kinne waaw sama yaay ji rek laa toppoon sama yaay rek laay topp ndeysaan joojo man tamit yéen rek laay topp yaa jongo ma kay musuma jongo sama kanam gi di mel na li may bañ a tudd sama kanam gi da comme jooga maa jooga leen lii yow rek la ñuy topp man yéen rek laay topp peut-être dina ñëwaat waa dina ñëwaat yàlla baax na dangaa rafet ay waay ñaay dama ñaawaay noo ko joteel moo la tooñ amal jàmm bi laay dama yee man dama neex mais tappate leen fii nag ngeen ñëw ñu ambiance waxtaanee ko sama musoo mooy sama jeune jeune jeune rein sa si fatigué sama sama dox nag yàlla leen ëmb comme réunion kas-kas comme réunion mbut sama xétu dox comme àlli wa musuma gis li duma may job faal jamm duma ko may jamm ndax job faal mën na doxaan bandi nag te xam nga fim toni damay liggé diko ko jox motax ma ngi ni ci all bi liggé ba son di jox job faal job faal di manax job faal di manax rek top ci top ci 24 bob 24 bob diko ko diko mandelo job faal ñew di man na ma dima defé yef yëf di rek lu ma am jox ko ko ndax dama koo nopp nag ndax dafa saf sama jëkkër yàlla bu yëy petit cola bi nee na ma damaa yëy petit moom Mbacke Fallou Mbacke Diouf Fall laa bëgg théâtre boo koy joué du neex ci yow mais boo toogee ba seetaan ko damay seetaan série bi damay ree bay jooy dama naan noo kii du ñun te ba may ba may joué reetaanu ma mais ba ma paree doog di ko seetaan damay ree série bi bay raam waaye lu mu ci mënti doon ba leen fàtte abonné ci compte bi yée seenu mangaan sama waaju seenu mangaan na mu naa la de bàyyi nga ma gis naa fleur yi Diop Fall gis naa fleur yi waay lu tax ma leetu bu subaa damay dégradé sama bopp bi dina naa ko dégradé na ànd ndax man dama tànkol ne sama bopp bi lii ba ta jokkal dem mu xolo xolo bona bi fi mu si lii lii jaadoo na lii bopp coiffeuse grande coiffeuse bi ton noonu sama bopp bi damay dem war ko ba mu set waa d'accord Diop Fall ba pare woo ma Diop bul fàttee abonné ci compte bi abonné ci compte bi ndax sama compte bi dafa ruus dafa dafa baneeru xam naa naar yi bannir nan ko moo tax naar yi wóorul yàgg nan ma man daal xam naa bu naar yi di bannir moom xam saa lay doon baat beneen ki naan ma c'est pas pas le droit c'est pas le droit kooku lay doon na ma yàlla àtte c'est pas le droit xaar ma muus sama bopp bi balaa mu leen jom man ndax lii moom wóoratul sama bopp bi nga xam ne day fecc kóllëre taanaat la ay fu naar yi la ma ne la appel direct la ma woo naan ma yow lan nga ma wax ba ku ne di ma tiktok li nga wax ni senegal di ma salans man nan ko wo excuse mu naan ma waa tu as la tu tu problème avec moi ma nan ko ma indi les Maroc ba Sénégal pourquoi tu n'as pas le droit tout des senegal n'a pas le droit dama tiktok nena na da xaw lan da salans xawma lan dama ragal nak ñom ñoo mer mer mom an na gagam sonu pare maquillage ni ma ko doon reetaanee moo man ba do la ni bilaay dama do la ma naan ko keng keng gis nga man sumay def dara duma ci baye xel de ma pare ba tok ba gis video yi no barke Touba dama rus sama jaaro de na len ko way merci beaucoup da ngay na bax kontana naa pare bi na tata ma def festival wax demat connexion bi pourtant mi ngi ñëw de nit nit ñaa ngi live ci kanam tuuti damay dégg ni puudaru waa bu ak bam naan pourquoi tu t'as moqué moi t'es n'a pas le droit ko woo xanaa droit sax waaru na xanaa droit sax waaru na wai. fu ma nekk nii maa ngi nii ci foire bi maa ngi nii ci foire bi ñëw leen am naa ay ay casqueur yu jekk kenn mos ak ko dafa ñëw pokoknya yang nanti ona hotel masuk orang ayo ayo nusuk ke kau tay mau biar maju seri bi dafa neex mama mama banir da yalla ma yalla jéggal ndax sosal nit waaye damaa xam ne keroog ni ma woowee mer dama bëgguma nit ku mer nday saan waaye naari ba pare xam nga la à la fin dañuy bëgg a yegg si compte bi ma leen di fayeeku xam naa loolu tamit dañuy tax rek ñu bannir ko noonu noonu saay-saay dañuy complot rek bannirandoo ko Anta Ndiaye woo na ma démb mu woowaan ma ay waay kontaan naa waaye am naa fi kilo mburaake yee baa duma fat <laughs> d'accord dinaa ko xaar Anta Ndiaye amul problème incha ci kanam tuuti dañuy ñibbi bu guddi dina bala droit seetaan naa ko un million de fois ndeysaan yow lii dafa neex de wut na banir sama compte mais banir nan ko de xanaa ngeen ma rek ah tapateel leen ma bii rek ma passe soir d'accord passez passez venez nombre venez venez